ñaari mbër yaa ngi noonu ci digg géew bi combat bu ñëpp doon xaar combat boo xamante ni ñaari ci nekk wax Laurent Ndiago <laughs> ah bi combat bi li ci war def yëpp ñaari xale wax na Bou wax na fi mu toll nii nag wax amatul kaay leen ñu jëf lañ leen di wax Laurent Ndiago Bou Siteu bu neex wala combat bu nar a neex arbitre ay siisam arbitre bi xool ay siisam arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 27 février 2022 Bou Siteu mu ngi dox ci kaw Laurent bu defal ndànk Bou Siteu Laurent Laurent ma ngay feem dañoo nar a xeex wala Bou Siteu ngay dóor fatt na ko Laurent ngay arrière Bou Siteu nañ Bou Siteu nee na leen feem la Bou Siteu loolu mbaa ci am mbetteel ah mooy de Laurent am na benn avertissement arbitre bi leen kaay Bou Siteu Laurent Ndiago arbitre bi sifflé waat na Bou a ngi dox ci koom Bou Laurent Bou Laurent li muy def ragalu la stratégie la bu muy teg bu nga daw ñëw mu reculé waat nga daw ñëw bu dawe dal sa kaw mbaa mbégteel du am lamb ji lamb la boo xamante ni dafa laaj dal ci Bou laaj dal ci Laurent Ndiago parce que combat xale la ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ ndeysaan nee na ko daa naaj nee na ko daa naaj Laurent la wax bu na ko daa naaj deux avertissements pour Laurent Ndiago ndeysaan daa freiné bu ak benn crochet crochet long la Laurent Ndiago Bou Siteu Laurent Ndiago Laurent Ndiago Bou Siteu Bou dem na Ardo Bou Siteu dem na Ardo Bou Siteu dem na bi sifflé waat na Bou Siteu Laurent Ndiago waa Laurent lu muy bëre Laurent Ndiago Bou Laurent lu muy bëree bu dem na ardo ba ñëw bëgg a jeexal combat bi Laurent Ndiago Bou Siteu Laurent cokkaas na Laurent cokkaasaat na Laurent dóor na Laurent ngay cokkaas ñoom ñaar lu nar a xaw Laurent cokkaasaat na cokkaas yi dalul Laurent cokkaasaat na Laurent ma nga naan arbitre bi kii dafa toj Laurent mu ngi naan arbitre bi kii dafa toj Laurent Ndiago bu Siteu Laurent Ndiago bu Siteu ma ngi cokkaas ñëw nañ ba ci angle bi bu da ko nar a saaku yi lora am na deux avertissement na moytu na moytu Laurent dóoraat ngi cokkaas daa bëgg a xeex ak Bou Laurent dóoraat na cokkaas na Bou fayu na ña xeex dóor mu daanu mbaa du am dóor daanu mbaa am Bou gémmiñ ko toj na Bou gémmiñ ko na Laurent yóbbu na ko Ardo bu nu muy xeexee baaxul parce que dafa jàpp ne Laurent da koo ragal te Laurent ragalu ko déedéet ragalu ko entraîneur na ko ne ko defal ndànk nee na ko bu dalal nee na ko dalal waa kii fu mu génnee ah entraîneur bi la moo toogoon ci chaise bi moo toogoon ci chaise bi yombul de combat bi combat bu rëy la làmb ji làmb ju ñuy fooye bu ñuy sàggane ndax ñoom ñaari xale yi ku ci nekk làmb ji dafa am lu muy def ci sa carrière ndaysaan trois avertissements pour Laurent Ndiago mbaa làmb ji deret bu bari bu génnee mbaa bu ak Laurent combat bi du mujjee yam fii wala déet aa aa lan moo nar Modou Anta de ku ko xam-xam ne yàgg naa jàpp pitax Modou Anta yàgg naa capté pitax de Modou Anta pitax bi pitax bu góor a wala bu jigéen pitax bi xaaral ma xool tey Modou Anta pitax bu jigéen la mu jigéen la fii day di stade bi day diis stade bi <laughs> ay Modou Anta Modou Anta daa jàpp benn pitax xool ko Bou Siteu Laurent Ndiago Bouss dem na Ardo ba ñëw combat bi arbitre bi sifflé waat na Bouss Siteu Laurent Ndiago Laurent cokkaasaat na Laurent cokkaasaat na Bouss Siteu moom ngeen jàkkaar lool Laurent Ndiago moo la wan ginnaaw Bouss Siteu jiital tànk càmmoñ Laurent jiital tànk ndijoor loolu nag mooy garde normale ak fausse garde Bouss Siteu mooy garde normale Laurent fausse garde la taxawee mu ngi dox ci kawam Laurent mu ngi dox ci kaw Bou Bou cokaas na ndeysaan Laurent daw nañ jàppante Laurent Bou Siteu ndengañante nañ Laurent ngi dóor ci suuf Laurent ngi dóor ci suuf Laurent Bou Siteu ngi dóor ci suuf Laurent ngi dor ci suuf Laurent Bou Siteu ndeysaan Laurent Bou Siteu Laurent ngi noonu ndaysaan jàppante nañ Bou Siteu ak Laurent Ndiago fu combat bi di mujj ndaysaan ñu ngi xeex ñu ngi xeex mbaa dóor mu daanu du am Bou Siteu mbaa dóor mu daanu du am hey waay lamb waay <laughs> eh, Laurent Bou Siteu ngay fayu Bou Siteu ngi dóor ci suuf Laurent na ko bu na ñu ngi fayu loolu fooram la Laurent Bou Siteu ngi jëm ci mu ngi dóor Bou Siteu Laurent ngi fayu Laurent ngi fayu mu ngi dóor ci suuf public bi nañ waaw ñaari xale yaa ngay bëre waayi ngi dóor ci suuf ngi dóor Bou ngi dóor door na ko xeex nañ laa ilaaha illallah waay xale yaa ngi xeex xeex nañ ba génn saako waay lii la la waay am na trois abattoirs dégg nga supporter bu yi nee nañ dina ko rey supporter bu Siteu yee wax noonu waay combat bi neex la waay bu wala déet Laurent dem na dem na Ardo Bou yóbbu na Laurent Ardo Laurent yóbbu na Bou Ardo waaye ya ngay Ardo waaye eh! Laurent Bou Siteu jàppante ragal naa hypercule mu rot mun na fee am de ragal naa hypercule war na fee mën a am de moo noo gisee làmb waaw lamb ji macha allah wax dëgg yàlla xale ñu ngi bëre lu doy war ndax gars yi dañu foog ne ay comédien la mais ñi ay mbër lan la ma gis ñuy def moom ay ndaanaan lan daal. looloo ma gën a jaaxal parce que combat bi ñoom ñaar ñëpp dañ koo jox cër. waaw non jox cër say mooy yoon parce que lamb ji fi mu leen mën a yóbbu la. parce que àdduna di bàyyi xel la moo tax ñoom ñaar kenn du ko si bëgg a fooyee daal. ndeysaan dégg ngeen Mor bu parcelle li mu wax ñaari xale yi Laurent Laurent rocc na bi bëgg a dóor boo ngi dóor ci suuf boo ngi dóoraat Laurent ma ngay fayu Laurent ngay fayu Bou Siteu Bou Siteu Laurent Ndiago bi fu muy mujj ci ñoom ñaari xale yi fayu na Laurent siggi na Laurent siggi Bou Siteu Laurent Ndiago Laurent Bou Siteu ngi ne tekk rek supporters yi ne nañ tekk rek eh Laurent Ndiago Laurent Ndiago Bou Siteu eh bu metti waay caxabal na ko daan Laurent Ndiago daan na Bou Siteu Laurent ko jël bu rëy eh Laurent caxabal na ko daan jël bu rëy waay. eh combat bu metti waay caxabal na ko daan na Laurent Ndiago daan na Bou Siteu ko jël bu rëy. Ngathie caxabal na ko daan ko jël bu rëy